moo tax li ma bëgg toujours ñuy bàyyi xel ñun de lancé nañ ci ay programme sama biir cabinet désigné naa ñetti nit xadi Khadija por jiite ko gis ngeen depuis quelques années dañuy def ay opération consommé local bu korité jotee wala tabaski ñu dem village artisanat jënd ay sag jënd ay ba sag bi nekk sama oto sag bi ma yor ni village artisanat laa ko jënde ñu dem jëndi daal di def ay vidéo ne sénégalais yi jënd leen ci li ñuy consommé li ñuy defar fii moo gën

ñu du groupé ñu jàppale leen ñoom ñu defar commande bi li ñu soxla ci table ak ci armoire yooyu ñu defar boo gën de jox ko koo xam ne parce que commerçant commerçant bi ñëw di jaay man xeexuma ko de ñoom ñun ñun ñëpp sénégalais lañ te dañ leen war a jàppale waaye moom dafa dem Chine wala Turquie dem jëli ñëw donc moom la ca la ca turki war a am Chine wala nam ñoom am nañ ko ba noppi mom wara jël bi alors lolu turki jël ak Chine mom la suñu artisan bi ont jël nu def ba inverser tendance bi ba commande publique bi suñu artisan yi mën ko porter lolu mo wara nek réflexion bi ñu wax leen ni am nañu bu parce que les nañ ni talent volonté suñu jàppalee nit ñi tuuti ci ay machine ak yu mel noonu pour les finitions qualité mais kenn dàq leen defar mm-hmm. il faut ñu jàpp ci